ñu ngi lay nuyu am mbégte dalalaat la ci Demb ak Tay bismillah waaw maa ngi lay fay Adja Fatou Thiam di la ziara eh, di la baalu àq di la baal àq mm-hmm. di la wax déwénati mm-hmm. di la seddaloo sama mbégte ci teew ci sa émission bu am solo bii di Demb ak Tay mm-hmm. ndax loolu rek moo fi ne soo peegee démb peeg tey di nga mën am xel bu rafet ci ëllëg kon yàlla yàlla barkeel. amiin alors euh, yow itam ñu ngi lay baalu àq di la baal àq di la déwénati ci euh, korité bi nu weesu ak euh, weeru koor gi ñu génn. Euh, mm-hmm. alors yow ci ay bés bi ñu génn justement da nga def taxaw seetlu bu xóot jàngat mm. bu yaatu lool ci euh, li ñu naan perte des valeurs euh, civiques ak citoyennes maanaam nit ñi xëy na ni ñu war a wegee réew mi ak lépp lu ci aju demeewul mm-hmm. nii waaye dañu caa dolli itam jikko yu ñaaw jikko yu yàqu wax ak ay jëf yoo xam ni yu safaanu la ndax mm-hmm. yar gi wala ndax dafa am daal fu yeneen mbir sooxee ba tax mu demee ni mu demee ne tey nga def ci gëstu ak taxaw seetlu bu yaatu bind ci hmm. itam lu am solo loola la nu bëgg a faram-fàccee xool euh, fan la yëf yi tagga témbee hmm. yow déjà euh, lan nga jàpp ni moo waral tey situation yi ñuy dund laataa ñuy dem démb xool xëy na na yëf yi hmm. daan demee te demeewul ni tey dëgg la fàccaam xam nga mbir mi sax weesu na perte des valeurs civiques et euh, ndaxte naufrage bateau le Joola mm. ci faatu yëpp yàlla leen yàlla yërëm xara leen àjjana bi muy amee dafa mel ni dafa am benn réveil des consciences bu mu indi mm. le président de l'époque maître Abdoulaye Wade oote à prospection mm. laata crise boobu di crise bateau le di am fekk na nit ñi doon wax ne les valeurs civiques et citoyennes réer na depuis sept septembre ba ndax li taxoon ndaw ñu jug ne moom jugal suñu loxo ci li ñuy seetal dëkk bi c'est parce que constaté woon nañu une perte des valeurs civiques et citoyennes mais prise de conscience bi naufrage le bateau le Joola def moo tax nit ñi jug nag daan ne ay mbir mi ñu xeex ko ndax perte valeur yooyu tax ñu sàggane suñu dëkk respecté wuñu les armoiries de la République respecté wuñu institution yi respecté wuñu dara loolu ci kàmb la ñuy jëmee te kàmb gu xóot lay doon ñu ne kon nañ ko xeex ñun EMAD ak yeneen ONG ak association yi nekk ci dëkk bi dugal nañu seen loxo ci xeex boobu daañu ne suñu miir yi ñuy def tableau d'affichage na fi jógee corridor yi ñuy def huile noire ñu ko fi jëlee regard des égaux yi ñuy sàcc baaxul mais tey dafa mel ni weesu nañu perte des valeurs civiques et citoyennes hmm. ñu ngi ci beneen étape ba nga xamante ne c'est encore plus grave parce que tey jooyatuñu cadre de vie bu yàqu hmm. mais dafa mel ni nit ci boppam ci réew mii di Sénégal hmm. moom moo wàññeeku su dee soo demee ci mbay jaan ceddeem daf la naan xooyeeku donc on peut même à la est-ce que ce n'est pas une dégénérescence même de l'être humain hmm. parce que lii nga xamante ne moom la ñuy seetlu ci dëkk bi daf lay tiitloo tiitloo gi mooy fan la ñu jëme hmm. ndax perte des valeurs civiques et citoyennes moom moo naufragé le Joola mm. mais cette pluie d'insanité qui tombe sur notre pays lan lay jur ëllëg et c'est là où se situe la peur parce que taw bu nekk nag am na gàncax ga muy jur mhm. su fekkee ne dugub nga ji su tawee nga góob dugub mhm. su fekkente ne mango nga ji su tawee nga góob mango wante soo jiyee ay xaaxaar mhm. lu yées xaaxaar donc ndox bii di sotteeku suñu kaw di ay saaga di ay euh, euh, xëtt sutura malaan bi sànni xotti wor ma taw boobu ban gàncax la ñuy jural. te wolof nee na ku ne li nga ji ngay góob. li nga ji góob li nga ji góob munoo ji xaaxaam yaakaar góob dugub loolu nag ku mu tiitalu ci fi réew mi toll tey di nga jaaxle ndax am naa am naa am na euh, waaju ma dégg muy justifier loolu di wax ne. Euh, suñu aada. Hmm. ci boppam moo ànd ak saaga mais loolu beneen xeetu saaga la hmm. saaga suñu askan. ndax ku dem nag ba di xalaat ne saaga ci boppam. Hmm. ci suñu valeur culturel la bokk. <laughs> c'est parce que danga nga réer su doon ci suñu valeur culturelle la bokk kon du ñu tiitlu. kon du ñu jaaxal. wante te jii jaaxal na réew bi mboole seen kon wax boobu wax bu yàqu la. fa ko jëlee nag moom mu ngi wax ay xaxara ki ay taasu ce n'est pas pareil. yooyu du saaga. déedéet te loolu yooyu muy wax dafa am ay conditions yi nga xamante ne moo ko doon waral am na lu tax ñuy xaxar ñiy taasu am na lu tax ñuy taasu ñiy gumbe am na lu tax ñiy gumbe wante taxaw ci sa rajo. wala filmer sa bopp tànn nit yekk ko lu la neex ci lu ñaaw tout simplement parce que seen diggante am na adversité politique mooy ne xàmmeetuñu sax lan mooy adversité ak lan mooy animosité fàccaam mm-hmm. Ablaye Wade nekk na fi président de la République mm-hmm. jàkkaarloog Senghor liñ ciy fàttaliku mooy Senghor li gën a rëy li mu wax Ablaye Wade mooy Laye Ndiombor. Mm-hmm. Hmm? boobu bu li gën a réy li mu wax Ablaye Wade mooy bopp bu attanul karaw mm-hmm. lu mel noonu la ko delloo. Mm-hmm. li gën a réy li mu wax Abdou Diouf mooy monsieur Moulin madame Moulin. <laughs> madame monsieur léeg-léeg monsieur Forage madame Moulin. Euh, su wax bi weesoo àggee ci yenn niveau yi exception la doon nekk. mais tey jii nag loolu doon nekk exception ëllëg tax ñëpp tax seen gémmiñ loolu tey moom mooy la règle et ce qui est plus grave mooy ne dafa mel ni sax c'est payan dafa mel ni ñooñu jëfandikoo instrument boobu nga xamante ne aara nanguwu ko diine nanguwu ko dafa mel ni ñooñu ñooy am contrepartie une récompense politique ba ñi nga xamante ne ñooy wax rafet ñi nga xamante ne ñoo mën a jàngale tey génn nañu seen bopp ci espace boobu. politique bu ànd ak valeur de léegi nee nañu doxul. non attends c'est ça qui grave. Hmm. et suñu demee maintenant ba boroom xam-xam yi war a wax retirer seen bopp bokkatuñu ci débat public bi am ci réew mi ñu bàyyil espace boobu à des personnes qui ne se connaissent que l'insulte et la mauvaise parole tiit gi nag dafay gën a yokk. loolu boo xew tey ci suñu réew bii di Sénégal. lan moo ko waral nga jaakaar. Euh, xam nga euh, la définition de l'être humain. Hmm. la conception de l'homme peuple bu nekk daf ko war a am askan bu nekk daf ko war a am. Hmm. da ngay jàpp ci sa jàngat ana lan mooy nit. ana lan mooy mission wu nit ci kaw àddina lan mooy diine ak lan moo ko tax a jug tey conception yooyu yëpp dafa soppeeku ci ñun sooy déglu ñi nga xamante ne waxuma xam nga sànq ñu ngi wax ci homme politique yi mm-hmm. mais même ñi wax ci diine soo leen di déglu tey da ngay mm-hmm. parce que des fois vocabulaire bi ñuy utiliser pour def seen prêche sax àndul ak la ñuy liggéey parce que diine kàdd gu rafet moo ci jiitu te kàddu gu rafet googu diine yi nga xamante ne ñoo mës jaar ci àddina bi yëpp foofu la ñu tegu kon kuy wax ci diine kàdd gi dafay rafet mais xoolal sax ñuy waaraate naka la ñuy waaraate léeg-léeg nga tiit ñu tiital wax dara nga rus yow miy déglu nga rus ni ne la noonu laa ko mën a waxee. te yàlla jàngale na lu ne yonent bi salaasam ah. jàngale na lu ne waaye wod wax ji dañ koy wodd ba. jërëjëf da nga jàng waaye du ñaaw. donc amoon na ay valeurs yi nga xamante ni ci conception bi ñu amoon ci nit. Hmm. valeurs yooyu dem na parce que notre conception de l'être humain est faussée. Hmm. dañu wax nit. nit da ngay nit wàllu rabe nit da ngay nite mooy nit da ngay niroox nit kon am na benn benn benn benn échantillon bu ñu teg benn unité de mesure bu ñu teg nga xamante ne ku nekk da ngay ñëw natt sa bopp ci unité de mesure boobu su tollox yow nga ne nite naa su fekkente ne dafa yées ñu ne la yow de da nga rabe mooy nirootoo nit rab ngay nirool su fekkente ne nit ki taxaw na taxawaay ba nga xamante ne moom la war taxaw ba mel na mu war mel ñu ne kii de nit kii mu ngi niit parce que la vocation de l'homme c'est d'éclairer son chemin et celui de ses semblables ñu ne nit dafay niit ñu ne kan mooy nit ñu ne ka natt boppam ci unité boobu ba am lañuy ñuy laaj ñu ne su taxawee noonu nag lan mooy vocation ñu ne moom mooy sangu mbindeef yi mu nekk doon ci kaw suuf yépp il est premier responsable sàmm leen moo ko war taxawu leen moo ko war gannaaw ba mu sàmmee boppam taxawu boppam ba ne ñu ne ban nit moom moo réussir ngir nit ku defar boppam ba doon nit ba nite mm-hmm. ba di nit kooku moo réussir mm-hmm. ñu ne kooku lan lañ koy xàmmee ñu ne ay jikko jikko yi nag ñu lim ko ngor mm-hmm. maanu fulla ak fayda sutura et cetera jikko bu ne ñu wax la naka lañ koy amee ak naka lañ koy sàmmee ax ban sàggante la ñu war a la ñu la war a moytu pour bañ koo ñàkk mag ñi demoon nañu ci xerañte ba dañu ne juddu doon góor ci deret taxut a doon góor hmm. ñu ne parce que dem ngor yomb na soo sawaree sax say tànk mën na la yóbbu ngor ngor le village de ngor hmm. ñu ne na parce que da ngay juddu doon góor hmm. <laughs> wante da nga war liggéey ba doon gore mhm. ba gore ñu ne dem gore nag jafe na mhm. tànk du lu fa yóbbu mhm. foog nga wut gaal woog nga war nga wala nga mën a fay xoola ma nataal boobu ba ci turu dëkk yi dañ koy utiliser muy des unités de mesure pour faire de l'être humain l'homme ce qui doit être véritablement kon problème bi tam est que nekkul ci yar gi euh, euh, yar bi bien sûr fépp la sooxee hmm. xam nga yar aussi mënoo ko teg benn place lan mooy yar mooy jooyanti nit ki. Mhm. wala jox ko exemple walla mu fekk fi lu rafet xam nga bët bët ci boppam. Mhm. dañ koy yar pour mu xam ana lan moo rafet ak lan moo rafetul. dëgg bët ci boppam. Mhm. dañ koy yar pour mu mën a. ràññee li taaru ak lu taaruwul nopp ci boppam dañ koy yar pour mu xàmmee wax bu xajam ak wax bu xajamul. moo tax olof ne su wax feebaree. nopp ya koy dégg hmm? kon su làmmiñ feebaree ba wax génn ca làmmiñ ba feebar nopp ya koy dégg su wéree feebar boobu du ko mënal dara. Hmm. kon nit ki ci boppam. ci jëmm ak na mu taxawee foofu la war a njëkkee donc yar bi sooxe na fàccaam mhm. yar bi sooxe na mais ku yarwul noo yare loolooy laaj bi hmm? <laughs> ne loolooy laaj bi nee nañu de tey mag ñi sax ñoo gën a départ xale yi waaw ku amul xam-xam nooy xamle wante tey nit mën nga ñàkk xam-xam te bëgg xam-xam mhm. juguuti ko walla wante soo ñàkkee xam-xam ba pare sàggan ci sa bopp bu bëgg ba nga war bëgg xam-xam réer réer la. mbaa xamoo ne sax xamuloo. doy na waar. Mhm. kon mbir mi feebar bi dafa xóot dafa sori te dafa yàgg. Mhm. moo tax nag euh, saafara bi du yomb. Mhm. Hmm. alors bala ñuy ñëw ci saafara bi ñu wax ci euh, peut-être responsabilité wu état ci liy xew yëpp parce que tam réew moo gis am na yoon xëy na am na feneen euh, boo fa defee yenn yi euh, hmm. automatiquement dañu lay jubbanti foofa itam da da yar daf fay ñëw ndax bu hmm. tegee ay daan ci kaw ku def naka sudul noonu dana yar nga ca des ba ñu xam ne lii kat waruma koo def dana leen dissuader peut-être ci ñu yegg ci ci yenn extrémité yi ndax tey taxaw yor sa téléphone filmer sa bopp dugal ci réseaux sociaux yi yàq cëru nit wax ci moom loo xam ne euh, mënta wax ba euh, xëy na xel du ñaaw ci moom loola itam état euh, yaakaar naa ni war na am ñu mu ci taxawee war na ci am benn responsabilité boo xam ne aussi daf koy engagé. waaw mais xam nga réew su feebaree su feebar bi àggee benn niveau bi dafay laal réew mi ñëpp xam nga wax nañ ne feebar bi dem na ba laal ñi nga xamante ne ñoo ñu war waar. Hmm. jàngal ñu suñu diine. Hmm. ba ñoom sax xamatuñu naka lañuy waxee. xàmmeetuñu wax bu rafet ak wax bu ñaaw ba ñoom sax jaay seen bopp moo leen tax a jug wut bës maanaam. <laughs> bu ne rek xool ne tey lan laa mën a wax lu àddina ba tax ñu waxtaane ma su demee ba yematul ci homme politique yi mm-hmm. yematul ci influenceurs yi laal na waaraatekat yi mais dugg na biir assemblée nationale hum ah kon léegi lan la desee dese. bi su jugee di wax ana lan moo ko tax di wax. Hmm. dugg na ci ministère yi laal na ñëpp parce que jogante bi ak compétition boobu nga xamante ne. Hmm. moo tax nit ki di wut position sociale ndax réussir sa dund ak sa nité mooy nga occuper position boobu. Hmm. te soo ko xasee occuper ñu ne askan bi baal nañ la lépp. askan bi baal nañ la lépp Fatou Thiam li tax askan bi di ko jugé. Mhm. mooy ne réussirul. Mhm. mooy ne amul koom. waaw ah, bu amoon bay joxe day. mooy ne amul daraja. Mhm. mooy ne amul tur. mooy ne mënul fasaka fecci mais su fekkente ne am na daraja am na alal am na pouvoir lépp lu mu def mën nañ ko ko baal. donc cutis bi nga xamante ne moom lay jox moo lay jox droit cutis boobu la société bi ñëpp di wuti. Hmm. ñu ne kon sàcc aayul ñu ne lu aay mooy ñu jàpp la <laughs> tànk yaa ngi rëcc rek c'est njaaloo aayul lu aay mooy nga feeñ hmm. xaadir mi nekk sa noonu li muy def kon mooy jël portable am hmm. di topp pour mën laa bett filmer la di la rëbb ni ñuy rëbbee gaynde ci àll ba waaw su la jàppee weer la su la weeree nga am gàcce parce que nit ñi yëg nañ ko kon feebar bi responsabilité bi c'est partagé. Hmm. moo tax ma ne sage femme ba ñu attaqué ne moom kat dafa sàggane ndaw si hmm. ba muy wasin toppatoo ko ba mu faatu <laughs> sage femme boobu ñun la. Hmm. sëriñ ba àgg ci ndongo daara bu jigéen ba muy jàngal ñun la député bay saaga ñun la l'homme politique ñun la borom ñaari tur bi ñuy joxar bi ñu ñëpp nan na génn réew mi suñu doom la. kon ñun ñoo feebar c'est-à-dire kenn mënu ci génne boppam. mais ñun naka la ñu def ba agsi fii Abdou Khadre ndax euh, euh, société sénégalaise ku ko mus a xam cest à dañu am impression que ni ñun dañuy glisser ndànk-ndànk te yëguñu ko. mais xoolal maanaam yëf yi daal dafa mel ni lu ñu lu ñu doxee ginnaaw wala lu yoot daal. Euh, waaw xaw daal nu ma ko mën a waxee j'espère que comprendre compte en fait. Eh, réew mii dañ ne réewu teraanga la. Mm. Abbé Boilat soo jàngee esquisse sénégalaise. Mm-hmm. mu ne la réew ngi nii. buntu boo jot fëggal amul sax bunt. Mm. duggal ñu ne la noo tudd noo sant tooñ ak yow. Mm-hmm. waxtaan ak yow jox la nga naan ne la wan baa ngi ne le añ jot ñu jox la nga añ tëdd jot ñu ne la duggal ci néeg bi su la neexee def. kenn du la ne cotiseel kenn du la fayeeku mm. mu ne fépp ci Sénégal noonu la mel mm. Abbé Boilat euh, moo moo wax loolu monseigneur Benoît Truffet ne askan a nii xamuñu fen xamuñu sàcc mm. fonk nañu baay fonk nañu yaay fonk nañu nit te nit ñëpp la ñu yemale duñ def gënaat la ci biir nit ñi kii maanaam kii am na kii amul ñu ne réew mi réew teraanga la mais xoolal match de football bi ñu mujjee joué. ak waa Égypte après ñëpp ànd ci kenn condamné wu <laughs> ñëpp a tàccu ne woy woy c'est normal parce que dañ ko def ñu fayu. am na kenn ku ma dégg muy commentaire mu ne où est la teranga sénégalaise mm. ma ne ko ah kay ah kay parce que teraanga bu ñu gën fonk ci teranga bi mooy bi ngay defal sa adversaire mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. parce que am teraanga ci ki la ki la ki la ji teraanga yomb na mm-hmm. mais ki nga war a jonganteel su dee adversaire la adversaire bi sax su dee adversaire la boo def booy nar demal guerre sax da koy ji teraanga lool da nga koy jaayanteeg sa bopp noonu noonu la mag ñi doon def di dem xare jàkkaarloo ki ngay xareel mm. fu xare bi tàmbalee soo ko jëkkee rey rey rey ko su la jékkoo rey la mm-hmm. wante nga respecté ko hmm? mm-hmm. même su dee ennemi la xoolal fii ñun adversité ci domaine sport sax mënatuñ ko fair play amatul mm-hmm. foofu la ñuy xàmmee nit ki mu ngi jàpp mu ngi ñàkk ay mbiram surtout nag su demee ba la muy def muy faute moom mënatu ko gis mooy nuuru na ci ba lapp moom léegi foofu foofu la ñu toll mm. ce fekk fait que donc l' affaire est générale soo seetloo Sénégal boobu ba tey mm. xam nga lan moo fi am mm. du man kenn su dee waa opposition bi la lépp lu ñu def bu ñaaw soo ko jox xarbee ñu ne xoolal Macky li mu def def na lu ko gën a garaaw <laughs> c' est c' est vrai baa bañ fi toogee def nañ lu ko raw est ce que en soi qui est mauvais mais dañu naan man kenn defuma ko wala sama adversaire bi il fait pire ou il fait la même chose Et puisque Macky fait la même chose, mhm. j'ai le droit de le faire su dee waa pouvoir bi tam même chose la ñuy def mhm. su ñu defee nga souligner le seen erreur ñu ne xoolal opposition bi ils ont fait pire. Est-ce que tu vois mm -hmm. ce que je te montre mhm. et là ça devient autre chose parce que nit ki mënatul àtte boppam Mm-hmm. te nit ki fi muy nattee mooy atte bi muy atte boppam moom la Cheikh Touré doon wax. ci conférence de presse ba mu fi ba mu fi defoon. Mm-hmm. ba muy juger le le le croyant. Mm-hmm. le croyant ba nga xamante ne su ooree jaayanteex boppam su demee tool gis dex gi di walangaan mango yu ñor lépp ñor kenn newu fa du lekk. parce que le gendarme invisible est plus puissant que le gendarme visible. Et le gendarme invisible, c'est sa foi, mhm. c'est sa conviction. Hein? C'est l'image et l'idée qu'il se fait de l'être humain, de ses devoirs et de ses responsabilités. Mhm. booboo neex. Mhm. moo tax nga mën a yóbbu sa doom ne ko demal tukki ji jàngi muy doom bu jigéen te doo tiit. parce que xam nga ne fa fa la nga ko wan ci nit moom la gëm. te moom lay dundal. xanaa ñu woon loxoom forcé ko ko wante su dee moom rek du fa teg tànkam. Mhm. wala su fa tegee tànkam su génnee dina rus. tànk nit kaa ngi rus. Mhm. mën nañu am yaakaar ci moom moom la doon wax gàcce biir néeg. Mhm. kenn fekkeewul ba nga koy def. kenn vidéo la kenn filmé wu la wante rus nga. parce que xam nga ne lii nga def defuwul tànk looloo ngi am nga am ci yaakaar. njombuteef de léegi amatul dafa mel ni. doy na waar ah. parce que lépp lépp arme la lépp arme la suñu la falee la première chose bi ngay commencé def mooy armé wu mm. contre tes adversaires qui sont tes frères où est la fraternité hmm? baa di wut ay noon waaw honorable député où est l'honorabilité <laughs> mm. excellence président de la république c'est quoi l'excellence pourquoi ñu lay ñu lay wax honorable hmm? yooyu yëpp su la réeree nag c'est fini li fi am léegi nag mooy euh, ñoo bokk camp hmm? Pastef laa bokk Pastef nga bokk kon lu baax rek laay wax ci yow lu baax rek ngay wax ci man ak loo mën a def parce que ñoo far loo def baax na ñeneen ñi suñu adversaire lañu suñuy noon lañu lu leen naqari neex nañu <laughs> c'est ça le slogan léegi mm-hmm. sama ennemi nga lu la naqari neex na ma mm-hmm. lu la daaneel neex na ma lu la yàq neex na ma et pour les autres aussi automatiquement mm-hmm. mm. et képp ku jugee ci camp bële ñëw ci sama camp il devient beau <laughs> Hmm? baa boo nekkee fee ba génn ñooña baaxatuñu. Eh, c'est ça Sénégal où nous kon yooyu yëpp ci wopp yi la bokk wopp yi dal réew mi. <laughs> Euh, ku tiitul. Hmm. c'est parce que doo nit. Cheikh waxoon na ko mu ne nañ sang réew mi. dañ mhm. ko sang ak xol yu set suñ ko deful. mën nañu àgg ci war ko sangee mu ne xol yi tàng nañu suñ ko yàbbee ci réew mi mu ne jéppét rayante bi de tey mi ngi mel ni tulleeg màlle mm-hmm. rey nit ak naan ci ndox mi daa mel nii la leen wutale mm-hmm. léegi bariwut mm-hmm. mag ak ndaw nag alors bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ndax yow mi may dégg yaa ngi naan ku tiitul doo nit mais bu ma la déggee damay yëg ne tiit nga te bu may liir aussi sa mbind mi damay yëg ne euh, tiit nga ndax alerte rouge nga wax alors mhm. euh, ci sa gis-gis bu ñu euh, woyee nii di jëm droit au mur ci ca lan mhm. la ñu mën a egg fi ñu mën a parce que suñu soppee ko bu doon ay rabu àll. Hmm. dëkk bi doon àll. ku mën sa morom rek. duma ku mën sa morom duma. Hmm. et boobaa ku nekk da wut foo làqatu mooy ban camp bokk nous serons euh, nous serons plus une famille. Hmm. nous serons des sous-groupes sous-groupe bu nekk beneen sous-groupe bi sa ennemi la sa adversaire la. et ce comme dans la jungle bukk yi ànd lu yi ànd xaju àll yi ànd et foo fekk sa morom duma ko hmm. mm-hmm. alors sànq yaa ngi indexé société bi ma mm-hmm. yëg ci aussi benn responsabilité ndax tey yaa ngi koy wax sànq ku am moom Euh, baax na ak lu mu mën a def baax na fu alal ji mhm. mën a jóge aussi baax na euh, mhm. ka ñàkk moom ak lu mu baax baax baax gisuñu ko parce que yorul euh, mhm. alal jooju tey dem ba yóbbu nit ci lu ne Mhm. ndax bu dee loolu mooy critère bi tax ñu accepté la effectivement ku ku ci nekk boo mayewul danga daw di ko wuti. Euh, mhm. actualité indi euh, li ñu naan Dubaï pot à pot yi. ay jigéen mhm. yu nekk Dubaï di def yoo xam ni euh, xëy na xel munul woon toog ba imaginer nit dina yegg ci extrémité yooyu. nga déggaat fii yeneen nit di wax ne bon liggéey la comme yeneen liggéey li. est loolu Abdou Khadre aussi. peut-être lu ñu mun a dugal la si feebar yi nga fi lim ak euh, euh, nan la ñu def ba yegg ci ci boobu euh, extrémité xam nga Fatia hmm. euh, loolu loolu moo feeñ yooyu moo feeñ ah am na yeneen yu gën garaaw yooyu c'est les symptômes de la maladie la maladie plus grave xam nga feebar su nekkee ci nit hmm. dafay feeñ ci ay symptômes ay mandarga yaram tàng wala mu génn ay picc hmm. wala mu def la bopp buy metti mais yëpp c'est les symptômes d'une même maladie mais la maladie est plus grave que ces symptômes. Hmm? ah doy na waar de. day am yuy feeñ bi may bind sama article bi lii nga mujj wax ni feeñagul woon. dëgg la feeñagul. après dama ko bind tey laa demee lii feeñ. Mhm. mel ni sax lii dafa effacé lii yëpp parce que lii gravité am dafa doy waar. Mhm. mais. Euh, ci feebar bi la bokk. ah bien bien sûr. C'est l'homme qui est malade, c'est la société humaine qui est mhm. xam nga eh, dañu doon ñëw jaay la doole jàppale jàmm yóbbu. Mhm. kinte kinte seetaan nga film bi. muy mhm. xeex di bañ. dañ koy jàpp dafa bañ. dañ koy yóbbu dafa bañ. mais àgg nañu niveau ba nga xamante ne nit ki mën a dem ba nekk un volontaire. waaw ñëw na la def ma jaam. da sëñ Cheikh waxoon mooy sopp lu boppam mbaam. jox la yar ne la war ma duma ma loo dóor xeeb naa ko su boobaa nag dañu naan mbir mi doy na waar et en ce moment mënatoo juger nit ki parce que nekkatu fa hmm. fàccaam nit nga yii ah, la xew Dubaay moom ku ko nangu moom. sag nité vraiment nekk nekkatu fa. waaw mënutoo ko juger. li nga mën am vis à de moom. pas jël ay xeer di ko lapider. Hmm. dinañ koy yërëm. compassion. ñaan yàlla nag. Hmm. li dugg doomu aadama yi. ba ñu agsi fii. Hmm. <laughs> yàlla nañ ci mucc. yàlla nañu mën a am euh, saafara bi. parce que nit ku def loolu nga wax. Mm. xew ca Dubaï. Mm. ak ki toog fii jàkkaarloo àddina. yaayam di ko seetaan papam di ko seetaan muy dagg fu mu gën a ñaawee di ko teg ci kaw taabal bi te xalaatul a kan moo may dégg. Mm. xalaatul xale bi muy jàkkaarloo ni ko poète ba waxee mu ne leeralal sa kanam. lu tax nga war ko leeral mu ne ñagasal nga sa kanam ba li la métti sa biir yëpp ngi seen ci xar kanam. ngay doxantu ci tali bi romb benn tuut tànk yàllaa ngi togg xolam mm-hmm. mu yëkkati ay bëtam xool sa xar kanam lam fa gis yëpp ci xolam mm-hmm. yëpp boobu mu yóbbaale ko biir dundam mu yàq àddinaam yëpp mm-hmm. mu ne su dee leeral nga sa kanam rek mu teg bët ci sa kanam mu jur leer ci xolam mu jur mbégte ci kanam nga ree mu ree mu dem mu yóbbaale mbégte googu pendant tout temps et toute sa xoolal sensibilité boobu. te loolu euh, ñëw na bu ma lay wax yar sànq maa ngi ci déggoon xëy na yaru diine ndax li nga wax ni mooy sabrun jamil yàlla wax ni nga nga muñ la la metti ba kenn du ko xam. Mhm. muñ gu rafet. ci yar lay dellu mais aussi daf ñuy delloo ci ci njàng ci diine mhm. ci yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na démb amoon na fi te tey euh, peut-être ay mbir la yu màbb ba tax ñu yegg si fii bu ñuy diagnostiquer problème bi yaakaar naa ni aussi yar gi Abdou Khadre am na ci place bu am solo mais aussi euh, diine ji moo xam diine boo mën a bokk nag ndax les mhm. religions révélées moom daanaka boo ci xool rek danga nga cay gis xëy na am mhm. lu ñu bokk ndax benn la euh, ki leen yónni kenn la ka ko mhm. wàccee kenn la donc est-ce que du foofu bu ñuy yeggee ci solution yi ndax du foofu lañ war a orienté gannaaw diagnostic bi aussi ñu seet foofu solution yi damay bañ ñu foog ne diine mooy solution lépp hmm. parce que waaye ban diine gis li ñuy gàmmu Sénégal ak li ñuy wajifa ak li ñuy wàcc kaamil ah ak li ñuy ziyaara ak li ñuy def ci diine yëpp terewul ñu agsi fi ñu agsi nii kon moo diine moo tax ma ne la notre conception de l'homme et de la religion mm-hmm. ñaari la ñu boole c'est quoi notre conception de la religion julli loo def baax na mais julli loo def baax na mais julli julli day julli nga ok lu ma def baax na ñu ne soo tabaxee jàkk yàlla baal la say bàkkaar nga xaaral ma sàcc su ma sàccee ba pare da ngay calculé. c'est scientifique nga ne ok naa sàcc su ma sàccee pare après ma tabax jàkk ñu baal ma ma dem Touba dem Tivaouane ziyaare ñu baal ma et cetera c'est pas seulement notre conception de l'homme qu'on doit changer mais aussi notre conception de la religion. lan moo tax a jug julli ¿Eh? lan moo tax a jug ziyaare lan moo tax a jug gàmmu ak visée bi objectif bi lan la. digle yi ak tere yi yàlla dafa digle mais laata muy digle dafa tere mhm. ñu ne toppal digal yi yëpp tere yi garaaw après ñu gérer ko <laughs> ça marche pas comme ça moo tax suñu waxee diine yem ci diine rek mhm. conception ba nit ki am ci diine mën na changer mbir mi parce que et puis ça va plus loin dafay dem ba ci biir sax dañ naan notre conception même du divin waaw ah, moo tax nga ne diine ma ne la ban diine parce que dafa mel ni ñun dañoo def taaye suñu diine sur mesure Uh-huh. ba mu yemoog li ñu arrangé ñu di ko doxal. wuñu diine bi kese yàlla sax dañ ko taayee sur mesure. <laughs> ba mu mel ni mu ñu arrangé. oui notre conception de divin trop léger yàlla boobu tuuti trop. Hmm. parce que ñun ñoo tuuti. Ibn Arabi mooy. yenn saa yi nga dégg kuy comédie ba interpeller yàlla tutoyé ah, ko. directement nit ñi ree. oui hmm. wax wax kii kii sax moo ko tutoyé garaawul. Hmm, kii comédie ko tutoyé dañ naan xamul. mais léeg-léeg waaraatekat bi ci boppam moom koy tutoyé parce que il te définit un dieu il te donne une image du divin ba nga xamante ne. Mhm. da kii dafa xamadi wala dafa dof wala lu ko dal. Mhm. donc li ñu war a revoir dafa dafa dafa yaatu. problème bi nag mooy am na nit ñu nit dafay niit l'homme doit projeter sa lumière. Hmm. son destin c'est d'être une lampe éclaire. comme la daa mel ni sunu bopp daf ñëw réer. waaw c'est comme le destin de l'abeille c'est de produire son miel. Mm-hmm. Hmm? fleur bu ne mu dem fa. la fa baax lu ne mu jël ko. dajale ko mu doon miel ñu ne kii de yàmb bi wàcc na nit ki day dem fu ne mu jàng fa. Mm-hmm. lu baax lu ne mu góob ko. mu doon lumière bu muy projeté. ñu ne kii jaanam wàcc na parce que projeté na lumière am. Mm-hmm. et en ce moment kii tiitaru mooy que produire lumière am. le destin de l'homme c'est d'être une lumière léegi nag on change le destin de l'homme c'est de jouir hmm? hmm. bànneexu hmm. li ñuy tax a xaalis kon wutil xaalis bànneexu plus ngay bànneexu plus ñu ñeela plus nga mateel sa est-ce que tu vois conception yi ñu mu mën a influencer ci comportement bi nit ki di am dans la société parce que léegi repères yi ñu am yépp sax pratiquement loolu la. Mhm. ñu naan influenceur foog nga dawal oto bu rafet dem tukki. photo wu à l'étranger man sax lan man kay ñëpp moom la ñuy wër sax fi mu ne nii. Mhm. man dama dégg hmm. bu ñu duggee ci solution yi Abdou Khadre tey euh, euh, peindre nga tableau bi ñuul na ko euh, doy na waar yéeme na mais ndax ba mhm. tey yaakaar mën naa am. Euh, tant que jiw bi jugu fi hmm, lu fi fi jiw bi jugul. jugu fi jeexul. Mhm. les graines sont toujours là et disponibles. Mhm. la terre est là est arable. le ciel est toujours généreux. kon mun nañu am yaakaar. Mhm. parce que nag ci ci lu ñaaw wi li ah la lëndëm li la ñuy wax. wante leer jugu fi. mbaax itam jugu fi. na dafa tumuraanke Hmm? Ah. xëy na dañ ko sàggane xëy na baat ba yàlla njëkk a wax arxulaan muy iqra lii bi xëy na lii plus hmm. Eli Charles Moreau nee na suñu facture courant rek la ñuy jàng par weer mu de <laughs> suñu message yi sax yan message hmm. su doon am li ñu tax a jug message yi di wone parce que tey le destin de l'homme c'est de boobu la ku nekk di wone photo su leer dugal ko ci Facebook bi photo sa yére bu rafet dugal ko ci Facebook bi mhm. pour dire que kenn yóbbulu ma ko man tam je suis en train de jouir mhm. même su dee tu dans la souffrance la plus sombre et la plus noire mhm. tu feras dans le paradis pour ne man tam maa nga fa maa nga fa ñuy bànneexu sama yére rafet na sama reer gis ngeen ko sama ndekki gis ngeen ko lu ne nga koy wone et tu plus dans le privé amatoo wanag booy wéet. Mm-hmm. parce que dafa doon am penc bi ñëpp bokk. am ëtt bi waa ko kër gi la concerné. Mm-hmm. am wanag bi nag. Mm-hmm. yaa ko moom lool. yaa ko moom. waaw léegi nag il y une certaine manipulation qui est de se dans ce monde. xew-xew yii yëpp nag am nañu muy arrangé. waaw waaw waaw. monde bi ab ah, dëgg dafa am ñu ko ñu ko mu tegu seen loxo tey ñu ngi lay orientation yi. Hum? Mmh. Ah oui, abrutir les peuples pour en faire des consommateurs de ce que nous vendons. Hmm? Mhm. Plus ils sont bêtes, plus ils sont bons, plus ils sont un marché. ñooñu nag xaw ma ñan la wante situation boo gis rek. am na ñu ko ñu ko judduloo. Mm. Hmm? di ko entretenir. am na ñu koy xamba am na ñu mu amal njëriñ. Mm-hmm. et tout ce qui est contraire à ça kooku dañ koy xeex kooku dañ koy jéem a noyé. Mm. et nous nous tombons dans moo tax ñoom ñu wut xëy na ñoo ko ñoom ñoom ñoo leen créé kan mooy fay influenceur bi kan moo ko ne kaay nekk influenceur. ak lan lay influencé ak lan mooy objectif bi des fois moom mi nga xamante ne mooy influencé sax xamul li muy liggéey ak ki muy liggéeyal c'est un outil dañ ko euh, influencé moom moom ci boppam waaw donc soo liiree les démos de Dostoïevski moom lay melal day sànni dafa dem ba suñuy politiciens yi sax discours yi ñuy tenir sax ñoo xamuñu ko ñoom tam dañ leen influencé hmm? dañ leen doxal leen nii Et pendant ce temps, les gens sont en train de réfléchir sur l'avenir de la planète, l'avenir du monde et de l'homme. Les philosophes sont en train de penser, de réfléchir. Mm -hmm. Tout ça, naka la ñu war mën a taxawalee nit naka la suñuy doom mën a mel pour mën a dund sur cette planète qui n'est plus ce qu'elle était. kii xalaat a ngi xalaat de. Hmm. ah yii xalaat a tumurante rek lay xalaat a tumurante saaw yi ak ma tumuranke xoolal les hommes politiques sénégalais aujourd'hui comme on a régressé hmm? Hmm. comparé leen ak Mamadou Dia nga xool hmm? même dans les raisonnements y plus de lumière obscurité la seen lumière bi ñoom seen lampe bi ma taal sama obscurité nga taal sa bopp ki la taal sa bopp ñu hm? feeñoo dans l'obscurité discours yi sax obscur la su ñu waxee nga rus c'est ça la vérité hein hmm. le discours politique est tellement de très bas niveau. waaw léegi moom ça très bas. Hm, ça vole hmm. très très très très bas hein ça vole très bas foofu la ñu a de quoi avoir peur mais pas trop peur quand même. ba hmm. dugg <laughs> pour euh, joyanti dégg nañ fi sax euh, ñu indi terme bu bu joyanti. Euh, hmm. ñëpp yaakaar nañ ne xëy na il faut ñoom ay dirigeants yoo xam ni nii la ñu war a mel nee la ñu war a mel mais euh, c'est plus profond que ça dépassé na dirigeants yi alors euh, mm-hmm. ci askan wi lan nga yaakaar ni xëy na moo mun a provoquer déclic wala euh, créer en tout cas benn prise de conscience boo xam ne dana tax ñu yëg ne ñun ni ñu toogee baaxut ñu mën a defaruwaat aussi xalaat génération yi ñëw parce que xëy na tey am na euh, comme ni nga ko waxee mbaax des na fi am na tuuti lumière ba léegi ñoo xam ne xëy na ñu ngi jéem a sax ci yoon wi mais mm-hmm. génération bi bu fi jógee bii ñëw ñu yar leen ci niinu leen yare fan la réew mi jëm alors nan la ñu mm-hmm. mën a xëy na def ba jubbantiwaat yëf yi lay bay di wey mbuus ah. mm. hmm? ku nekk toppal ndigal yi dañ gën a téere yi Hmm? ñu jàng nañ làmmaat xel yi hmm? euh, nañ jubalaat xool yi gis-gis yi jub ku nekk defal un travail à ton niveau. Hmm. waxtaan ak xale bi la jege waxtaan ak sa waa kër. waxaaf yi ñu mën a waxal sans nag ba ñu taxaw ah, un prophète voilà ne yàlla moom la yónni bon yow yàlla ci jamono yaa jaasi yàlla ci kaw suuf loolu mooy nit ki baax dëkk dañu bon qu'on hmm? da gën a samb safara bi. kilifa diine yi kilifa diine yi yaakaaroo ne war nañu xëy na mën a doon capitaine bato bi. wax mais capitaine bi yaa koy def sa bopp. man hmm. hmm? dama bëgg a nekk capitaine rek may nekk capitaine boo wala nga ne ñi ñu war faj tànn seen docteur. <laughs> même malade bi mooy tànn docteur am parce que malade bi su dee fànn nekk mu war defar xel bi fekk xel bi dafa toxu soo ko nee tànnal docteur mu tànn moromam bu ko pour mu faj ko mm-hmm. docteur bi su ñëwee dañ koy lapidé ki leen mën a hmm? mm-hmm. mm. dañ koy yuuxoo su dee homme politique la su demee élection mooy jël ndaare su dee kilifa diine la su ñëwee si jàkk ji ne doo ñu ne ko doo fi jiite mm-hmm. logique pour logique noonu lay demee donc ku nekk defal sa travail à ton niveau bon c'est pas ku mu neex nga nekk Baye Abdou Aziz Sy Dabakh mm-hmm. ah nekk ko waaw du ku mu neex nga nekk ko mm-hmm. maintenant man lii daal sama xel mooy ne jiw bi mu ngi fi addina bi aussi je crois au miracle hein mm-hmm. yàlla moo ko moom moo ko dugal ci lii bi et puis mooy orienté bato bi dina teer fu mu war teer am na ay xew-xew yu am yu gën a garaaw yi am na si jamono ah li ñuy jooy nii am na si jamono yële yu weesu woon yu gën a garaaw sax yii. Mhm. ba nit ñi ne lëndëm gi tar na fu ñu jëm wayaa yooyu et cetera et tout. Mhm. après yàlla jamono tegaat ko ci raay. yi mhm. itam noonu lay doxee. guddi ba bëccëg léeg-léeg bu guddi. fi ñu toll nii nag ñu ngi ci timis gu tar. jëm guddi waaw. <laughs> yàlla mën na ko ëlbati mu bañ àgg ci guddi ki sax nag yàlla ñu ko defal. mais nañ def prise de conscience bi ku nekk liggéey à ton niveau. Mhm. en étant positif maintenant. Mhm. c'est pas que tu fais un tableau sombre noir euh, tu deviens aigri méchant mécontent contre tout le monde. Mhm. bon parce que mbon gi man mi koy décrire nii maa ngi ci biir hein. ah oui ñun ñëpp ñu ci biir on suñu jamono la. te sa jamono mënoo ko mooy foog nga niru sa jamono waaw foog nga niru sa jamono. à mbon gi soxor gu tar itam mi ngi fii Mm-hmm. Euh, li xew bar ñi barki démb misaal la ci bu doy euh, nekk ca la leen neex gone gis leen mm-hmm. ngeen ne pour mu noppi nan ko faat tiim ko xoj ko ba mu sedd man gëm naa mm-hmm. ne ay ay jamono euh, peut-être yu sori sénégalais nit en tout cas mënul woon loolu alors ñenn ñi dañuy accuser foofu mondialisation xëy na film yi nouvelle technologie bon peut bu ñu xamee wopp gi solution dana yomb waaw bu ñu diagnostiqué foofu soxor gi. am nga olof waxoon na ne ku uh, sañ ku mën a wax lu ne. Mm. sañ a def lu ne. Mm, kon dafa fu mu tàmbale ah oui oui ku la gën a ñaaw làmmiñ ragal ko. Mm. ku sañ wax lu ne mën a def lu ne. su làmmiñ ñaawee rek tiital. <laughs> parce la làmmiñ ji duy. ca teenu xol ya lañ koy duyee. Mm-hmm. Hmm? waaw loolu leer na. waaw làmmiñ ñi ñaaw na. Mm-hmm. foog jëf yu ñaaw ñu ànd moo tax ma ne li ngay dégg nii mooy ñi feeñ. Mm-hmm. li ñuy nëbb te feeñagul moo ko gën a moo ko raw yàlla bu mu feeñ yàlla bu mu feeñ. alors Abdou Khane yaakaar naa ne def nañu le tour euh, luy toll ak juróomi simili mbaa lu ko yees moo ci des ñu bàyyi la rek mhm. nga tàggoo xëy na boo amee message booy sànni aussi ndaw ñi mag ñi réew mi yëpp bu ko defee xëy na mu mun a delloo si xel yi fàttali ko aussi la mag ña daan def démb ba ko sama bopp rek la mag ña daan def démb te tey amatu fi xëy na buñ uh-huh. ca delloo comme yéen EMAD uh, ci loolu ngeen di dox fexe sàmm li fi mag ñi bàyyi valeur yi nga uh-huh. xam ne moom lu fi mag ñi bàyyi donte ci collectivité lébu bi ngeen di ëpp lu ngeen di activer wu mais jéggi ngeen ko valeur de manière général Sénégal li fi amoon démb te tey mu tàmbalee ruus moom ngeen di jéem a sàmm moo tax nga placé bu baax xëy na pour fàttali la daan am mhm. démb ak tay li fi ñàkk ba xëy na mu mën a expliquer li ñuy dund tey jii. waaw waaw euh, xam nga liggéey boobu Cheikh moo ko tàmbali woon toujours mu wax ko. Mm. Cheikh moo ko tàmbali ñuy saasaatu suñu démb di xool ne pour ñu siggi mm-hmm. am fierté xam ne ñu nit ñu ngi fa mm-hmm. te mën nañu li gën a taaru ci àddina bi mën na jógee ci ñun mm-hmm. c'était ça ba Senghor di wër wër le Sine profond pour génne les poèmes anciens c'était sa hmm. si defar nit la nekkoon. Hmm. waaw ba Jacques Bunikour joxe son slogan après l'évaluation siggi. Hmm. siggi bi dafa fekk taxaw yi Cheikh Anta Ba. kon nañ siggi nañ taxaw nañ ragg suñu bopp sangu ba set jàkkaarloo àddina rafetal suñu tey liggéeyal ëllëg. yàlla bëgg ci ñun. lépp baax. ñun nit ñu bëgg si ñun. parce que su boobaa su dee jotee. dangay ngay dee ak légèreté mm-hmm. da ngay dee en disant que la ma waroon def ci àddina bi mm-hmm. def naa ko wàcc naa mm-hmm. waaw su boobaa nag ñu ne la demal damul tiitarul parce que def nga sa warugar nit nga nit nga gannaaw ba nga nitee loolu mooy suñu warugar yàlla yàlla may nu def ko jamono ji lëndëm na nag. Mhm. wante gannaaw guddi. Mhm. bëccëg. Mhm. Hmm? te bala ngay jot bëccëg jaar ci guddi. waaw gannaaw guddi bëccëg espérons que le soleil va bientôt se lever. et que nous serons de nouveau dans la lumière. Sénégal yëpp am jàmm. Euh, ñu ànd ñun ñëpp nekk benn say. nekk un peuple un but une foi. ñi mën a nekk puso doon puso mhm. mais ñu xam ne puso pour mu mën a ñaw foog mu ànd ak wëñ mhm. ñu jël wëñ yi nas ko ci puso yi mhm. ñaw suñu dëkk bi defaraat lu yàqu sang ñu tilim wodd ñu rafle reggal ñu xiif nandal ñi mar loolu mooy suñu warugar. waaw yàlla may ñu kat ñu def allahumma amiin jërëjëf mhm. Abdou Khadre Gaye njiital EMAD nekk euh, itam euh, écrivain di xalaat lu bari di bind aussi euh, ci mbir yu bari yu soxal réew mi bokk na ci yàqu-yàqu yi ci jikko yi ak ci yeneen i fànn yu bari yoo xam ni wopp la wu dal ci kaw réew mi ni nga ko waxee yàlla mi am saafara yàlla na nu ko yónnee ñu génn ci guuta gi ndax bu dakkul moom fa nu jëm kenn xamu ko amoon nañu mbégte en tout cas dalal la ci Demb ak Tay Wade jërëjëf kon mbokk yi seen émission démb ak la woon ñu gërëm Diabo Diallo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi euh, ñu doon dalal Abdou Khadre gay njiital EMAD mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu jox leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen jaa ngeen jëf ñu yendoog jàmm